لموي جيف ييب لم تي بوك موي ادونا بي لا تي بوك تا موي عاجلا ما نكو دنجكو جوخ ليغ لم بوك نا تادنا بي ليغي نا مو دوغال ييفر اك نافق اك كوي نغيستال كوي نغيستال اد ندونغ لا بوك ndax li bëgg may ko tagg kon day dugg ci biir mu yéefar bi naafiq bi ngi tënkat bi moo tax lu bon du mos a baax mais dañ gën a ëppante degré bon bon yi dañu ëppante degré ni baax baax yi ëppante degré noonu la bon bon ni mel nit mën na def lu neexul yàlla du tubbi jege yàlla waaye ngis tën ku koy def doo jóge yàlla mukk parce que defaloo yàlla dara moo tax mënoo jóge yàlla ngis tan moom koy def mënoo fexe bu jege sa borom ndax defaloo ko dara moo tax te yeboon bari na añaan nanga fi réyëng lépp waaye ngis tan ci yées moo tax mu ne man kaana ku nekk na mu du bëgg ca jëf ja muy jëf alajilata àdduna bii ajal naa ñu gaawee ñun yàlla loo sax ñeel ko fiyaa ci àdduna bii ma lépp loo xam ne dasaw soom nañ ñun sa boroom li ma nekk nga xam ne ñun du bëgg nañ ko gaawee la muy def ñu jox ko la bëgg ci àdduna bii nu muy neexee rek sottil ko rek sottil ko rek su ma jaal naa topp ñu def ñu sa borom doo ñeel ko ci yomal xiyaamati ñu def jahannama ndax bu metti boobu naqadi boobu bële yaslaha mooy dugg waayam mu nekk nag mas mu man ku ñu ŋàññ ku ñu yedd ba dafa waran dàq ci yërmande borom bi nekk ku ñu ŋàññ ku ñu dàq ci yërmande borom bi borom bi nii wa man araada ko na mën a mu cële muy jëf al axirata yawmal qiyaamati wa saxaa mu jëf laxa ñee mooy yowmal qiyaamati sax yaa jëfam je woote moom kat moom ñun aji gëm la jumla jumla xaaliya la fu wulaayika borom bi ne ñooñu lee kaa ne nekk na bu pare sax yum seen jëf ga mas ko duñ sant suñ sant borom bi ne na ku lan ku ñaari kuréel yi kii def ngir àdduna ak ki dem ngay loolu qiyaamati yi nu mu dinañu tëbb danañu jox xaawulaay gaa ñi waawulaay ak ñii laa wax dañ leen jox kenn ku ne mu yataay bi ko samay borom ku bëgg àdduna borom bi dana jox ku bëgg yawmal qiyaamati borom bi dana la jox moo tax maa kaan nekkul xa ah, tawra bi ko samay boroom maxsoron di lu ñu xaye xayuñ ko kenn dañu xool ku nekk la nga choisir rek topp ko ñu fekk la ca borom bi ne unzur na nga xool nag xoolal kayfa faddalnaa la ñu gënalee ñun sa borom naka lañu ñu gënalee baadum lenn ci doomu aadama yi xalaat wala ci ñeneen ñi ci wërsëg ak ci daraja ñi am wërsëg lool ñi néew lool ñi am martaba lool ñi néew ko lool borom bi ne lépp mën naa ko dem man sa borom te wala aaxiratu yawmal qiyaamati nag ak boobu moo gën a màgg ca borom bi. darajaatin ci martaba wa akbar moo gën a rëy tafdilan ci ngëneel kon ku ngëneel na nga ko sàkku yomal xiyaamati borom bi ne nag nay dee baaxul waaye yàq yi baaxul nag te it borom bi kenn la amul ñaareel laa tax bul def maa lay ànd ak yàlla ilaat beneen yàlla aaxira beneen daganut kon nooy dem mu ne fa tax xoo da danga nga jékki ne déjji dafa ma nekk kuñ yedd kuñ ŋàññ maxsulan kuñ gàcceel yàlla du la dimbale mukk du dimbale de nee na waxa digle na borom bi digle na mu na rabu ko sa borom mooy faal bi lu mu digle allah taabudu bu leen jaamu yéen doomu adama yi illaa iyyaahu ku dul moom wana ngeen rafetal maasa ba na ngeen rafetal ñaar way jur yi ixsaanan dafa am solo lool moo tax mu indi masdar bi bàyyi feyel ba moo tax mu indi masdar bi bàyyi feyel ba moo tax mu indi masdar bi bàyyi feyel ba suñ borom bi aaya bi daf ca indi ñaar fukk juróom ci ay xàtte ci ay àtte yéen ñi nekk cosaan yéen ñi nekk bànqaas mu tàmbalee nag ki wéetal yàlla ki mooy li njëkk jàng léegi la taxel mahallaahi ilal kon ne na nga wéetal yàlla pour yu njëkk na nga na nga wéetal yàlla looy def nga daf koy def mais na nga nangu ne yàlla moom kenn la ba noppi nag moom la ci njëkkee tëj ñaari way jur ñu amee solo ñu amee solo moom la ci teg gëna bu toppee sa borom wétal ko haq way xamul dara motam mu tek ko ci borom bi ne imma yabluqanna ndem jot na mu indaka fi yow do adam bi al kibar ak magge mooy magat aduma gën ko ñom ñaar mooy faal ba ak kii daama wala ñom ñaar ñep ñom ñoo magat bin la waxe fala taqul wax lu ma ñeen leen ëffin cam bu leen ci bëtu bu leen basu déedéet bu ko def yaa lëkkale tos ko re nga ku wax sa wajur kay yow yaa tos ko borom bi ne wala tënar wala tënarhuma bu leen gëdd leen ñoom ñaar waxul waxal ñeen leen waxul waxal loo ñeen ñeen leen xam wax joo xam ne kariman ju rafet la ju nooya nooy na wax sa wajur yi benn waaye ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de suma wajur dafa naa ko lii ak lii ak lii ndax fay naa ko mu ne ko déedéet mu ne koo fay de mu ne ko lu tax mu ne ko ñoom bañ lay defal dañ doon ñaan nga dund ñu dee bàyyi la fi yow yow bi ngay bi ñu leen defal yow yaa ngi ñaan ñu dee bàyyi la fi encore yu tamit ko moo leen yaa ngi ñaan say say wajur dee bàyyi la fi kon moo leen fay wax fit na suufeel mooy na nga noyal du màññee leen janaa sulli mbëggum toroxtee nag wàcce sa wet ci toroxlu nag toroxlu nag ngir lan nag mu ne ko def mu ne min rahmat yi ngir yërmande maanaam li ajli rahmat yi laa mu tàddi waxul waxa rabbi sama borom irhamhuma na nga leen irhamhuma na nga leen yërëm ñoom ñaar kama rabbayaani kon niñ ma yore woon yore ma nekk di gone gu ndaw rabbukum borom seen aadamu mooy aji xam ma fi nufusikum yi seen bakkan yi moo ko xam de borom yi inte kon a nekk saali yi na de way baax di topp seen borom fii noo borom bi na mu li topp yi ñoom ñëpp xafaroon di jéggalaa koon borom bi ne ku topp ma jéggal la de waa ci joxal nag yow aleyka salaatu wasalaam sal xubra mbokk borom jege ñaale yi beneen baa ngi joxal mbokk jege ñaale yi kenn ku ne xàq woo fam ci mbaga ak jokk mbokk ga wal miskina miskin na ko jox moom itamit lamu mu yelloo nag ak kuy tukki jox ko lamu mu wala tubasi bul yaq nak tafsiran ak yaq boy dépassé bul yaq de man yalla jexaluma dara te ku nek la mu lay jox lay yelloog yow bu neexoon kenn du ñak bu neexoon kenn du wéradi di way duma ko def ba ñu xam sama bur ñu xam sama sama sama katal ñan mu naka way yaqi kan nek nañu ikhwana sayatini di mbokk setané yi ci seen yoro te ba kan nek na mo setanu setané mi ka faroon di di waay ko woon leer bi ñeel boromam kon bu and ak moom ku yaq ko ne mbokk nga te setané mo dafa weddi boromam gën a way ma tuuri dan yow aleyka salaatu wasalaam lim du mo yunga xanu walis len ñi wax ni te moy ñi nga xamne ño ñew bëgg dara mbokk jëgë ñaali ñi wax miskini ñi wax ñi tukki ñooñu de bu ñëwee laaj la fekk amoo déggal de bi ma tudd danaa noonu ñu nag leen dummoo yi ibtiqaa rahmatin ngir sa eh, sàkku yërmande mi rabbika ci sa borom boo xam ne danga nga ko yaakaar waxul waxal loom leen xaw leen wax joo xam ne may soran ñu neex a neex la bu ñëwee ci yow sàkku ndimbal loolu ko am lu ma yaakaar de xaaral fekki fan wala fekk fee ngoon am na lu ma yaakaar te kat am na lu ma yaakaar du doomu aadama de suñu borom mi la bind nga yaakaar du ay fen de yàlla mi bind nga yaakaar moom amal na balaa ay fan mu xéwal la nga jox ko moo tax mu ne wax ju rafet ngay wax ju rafet ne ko xaaral mu ñor mu ñor bëgg naa sama nga si waat si wala yu mel noonu waaye gëdd ko yéen mën a laaj ëpp naa def la ma la waxoon ngi noonu bul yàq bul nay walaata xel bul def ya dekk sa loxo bi maax loolu tan mu nekk lu ñu gëx ila no xika ci sa loox wax sa loox bi bu mu dag ci conc bi dedet duñ ko gëx waye wala tabsuta bu ko talal nag kulal basti bi ak talal bu joxe bu jexal tak jëm dila jaat ah ah fa tax wala kon ne ko man nek ko xamne kuñ yadd nga delu ca bu njëkk ba moy baña joxe masuran nek kuñ dag nga complètement dut nek fi yow moy bu del si bu ba joxe lepp lo xam bu jëlee benn dañu la bëgg sa borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li muy saa ko soob wa yaqdir mooy wutal wërsëg moo koy xatal ko soob ma sab ko ino borom bi ka nekk na mu ba di ci jamam ya xabiran ndiku len deñ ko kumpa parce sene ko xamne ko len xam la lol wala taqtuloo bu leen rey awlaadakum seen doom yi mooy dall di doon jàng démb surta deewul bu len ray sen dom wi qasiyatan imlaqin ngi ragal ñak naan ñun sa borom narsuquhum narsuquhum ñoo leen di wërsëgal wa iyaakum ak yéen inna xallum seen reyga kaa nekk na xit andi bàkkaar boo xam ne kabiran bu réy réy li bu màgg la beneen baa ngi noonu wala taqrabu wala taqrabu bu leen jege asinaa njaalo bu leen ko jege mukk innoo moom kaa nekk na fasidan da lu ñaaw a ñaaw a ñaaw wasaate bon na mu so bi leen di ci yoon moom moom sinaa ak sida ñoo yem wala taqtulul nafsa bu leen rey bakkan nit yi boo xam ne xarama araamal na ma ko allahu yàlla ila bilaqi ndare dëgg de mooy ku rey ñu rey ko wala ku sange yiw wa man qutila koo xam ne reef ko mot la man te tooñ ko faqat jaxal naa def nañu wala yi ñeel ko ña koy donn mooy kilifa ñu mbokkam ya sultaanan benn li nga xam ne mooy kàttan ndimbal borom bi ne na fayu ji rek wala mu laaj ndàmpaay fala isrif nee bu mu jàggi dayoo nag fi xel ci rey ga bu mu rey ko reyut de rey ko reyut de bu ñu ko reyal kenn mu rey ñaar déedéet innoo moom kaa nekk na mansuran di ku ñu dimbale wala taqrabu wala taqrabu bu leen jegeñ maa lal yatiimi alalu jirim yi illaa bi lati lu ma ci anam boo xam ne hiya moom anam ba ahsan boo gën rafet xanaa ngeen cee def yaxantu di am ci bénéfice ba mooy bu la gën rafet hatta yabluqa ba ba tamu jote asu doo dooleem waaw foo ma tane bil aadi ci kóllëre ngeen kóllërante ak seen borom wala ak nit ak nit ina ala daga pol ka nekk na masulan da duñu laaj wa aw foo na ngeen matal kay la natt bi ngeen di natt na mat isa kiltum yi ndem yéen a ngi natt wa si noonu na ngeen peese bil qistaasi ci balance boo xam ne mustaqim bu jub la xam nga wolof dañ ne balance lay wax balance moo tax ñu bare bari dégguñu wolof balance mooy loo xam ne dafa dafa dafa net net net ku nekk di ñoo di sa morom waaye gëkk la ngay def gëkk gëkk bokkul ak balance balaax bu nekk dafay dafay ñoddi moroomam bu tolloo bu mu daanu bu ëpp bu mu yëgatu bu ëpp loolu mooy balance gars yi nag ñoom dañuy def bëkk borom bi ne saalik loolu xayrun mooy li gën waxtu mu gën a rafetaay weneen ci delluwaay wala tax bul xeñtu bul topp maa loo xam ne da si di nekk làkk ñeel la bi ñoo xemul benn xam-xam ndax nag ina sama naka dégg-dégg bi lepp lu noppay deg wala basara lepp lu bët gis kul faada xol lu muy qatil di waxalat bu rabbi ne kulu laika mo seen ñom ñep ka nek na mo di lu ñu laaj xana wëyul ko yep lu ñu laaj borom dañ ko laaj de la nga deg la nga xol la nga dox la nga laan la nga tok yëpp lu ñu laaj wala tam ci borom bi ne bul dox fi adu ci maran da aji sigre di tiital di rëy di tiital di jang jang ah ah muy maraxal bu ko def borom bi ne innaka naka yow la tuur raqadu mënoo xotti mukk ala du suuf si dëngëj dëngëj bu suuf si xotteeku ma ah mënul nekk doxal dank wala tab loxa doo joti al jibaal doo ñu tool ci guddaay loo jéngal jéngal sa mbagg mi da yaa tim tiim jël jéngal mbagg normal la rek borom bi ne kulli saalika mbool seen yooyu yëpp ñu tudd kaani nekk na mu sa yu ñaawteefam indal bu indal fa sa borom makkur andi lu ñu sib borom bi ne ko mi maa tukki ci la nga xam ni awaa wax yi ne ko yekk mu jëm ci yow rabbu ko sa borom mu ne yëkkati ci ay waraate borom bi maa la ko jox du ne yaa fente déedéet jàngaloo ko yi nag man maa la ko wax yu kon yooyu waxantu la walaata yàlla ba def moom yow doomu adama bi bul def mukk maa lay ànd ak yàlla yàlla la yàlla joo xam ni aaxara jineen la kon fa tulqiya sànneef la eh, ñu sànni la fi jahannama ci jahannama nga nekk ma loo mën kuñ yedd ma doxoran kuñ dàq ci yërmande yàlla borom bi ne afa asaakum dafay ndax dafay tànnal yëfar yi borom bokkum seen borom mu ngi noonu ba ñu ci ay doom yu góor wa taxasa moom mu jàpp mi ne malaak ma malaaka yi ñasa ay jigéen ndax ñoo xam ne am malaaka banatulaayi borom bi ne waxuñ dëgg innakum nekk yéen ñii ne toqaloon na da ngeen di wax rek xaloon wax joo asiman xaloon wax joo xam ni asiman ju màgg màggale te ñaaw wala xad saraf naa borom bi ne leeral nañu fi hadal quraan yi ay alquran ji ñoo ci leeral ci tëkku yéeg li di dëgal yi di yettakkaloo ngir na mu waaru ñoom doomu aadama yi ñoom yéefar yi amay sunum di leen yokk ñoo waraate wa ilaa nufuran la mooy fañ ilaa daw dëgg rek xul waxal ñeen leen lokana bu nekkoon na mu waaw ànd ak borom bi alaatun ay yàlla kama taquluna comme ni ngeen ko waxee seen ko leb taxaw dinañ sàkk ñom yalla yoyé dé ila ila arsi ci borom aras sa beneen yoon ko ñu watee yalla de ku gañe jël kon ñu wate ji am kenn du wateeg moom subhanahu wa taala wa sallam wa taala borom bi ne jom na moom xama yoquloon wala la ñuy wax ci bokale ga wala won jom go xam koy go xam ke beneen gu mag mag la borom bi ne tu sabu dun sabal lo lu borom bi sama wat asmaan ñaar di sabal yalla atax mu ngi nonu wal abdu ak suuf ñaar man fii na ak lépp loo xam ne mu ngi ci asamaan yi juróom-ñaar suufi juróom-ñaar wa in sayin amul lenn lenn ci luñ bind illaa yusabbihu mooy dafay dafay sàbbal am di ànd ak sant borom bi lépp lu yàlla bind dafay sàbbal nag walakin li fi nekk mooy laa tafqahuuna ah, du ngeen dégg yéen doomu aadama yi tasbihahum seen ya paaka sax bu daanoo day sàbbal paaka sax bu wëddee am na lu muy wax day sàbbal borom bi ne innahu nekk moom borom bi kaa nekk na xaliman koo xam ne ko lewele ko dënnëral la xafoor njëggalaakoon la yëppay ya, sàbbal yëppay ya, sàbbal yëpp ya, yëpp yëppay sàbbal waaye dégg ko nag moo hmm. borom bi ni wisaa xalaat dem yaa ngi na ma jang alquran alquran yu tedd ji jalna ñu def ñun sa borom bayne ka digante sa yow aleyka salaatu wasalaam o bañ a la si diggante gaa ñi nga xam la yu duñu du gëm bi da xati wal qiyamati Hijaban kira, mastuuram suram bo xamne bu len baare yeen hmm du leen gis mukk mo ñe ko bëggoon song ci ñom la wacc ay bi ñu la wacc mo tax yént wax ci bu leer ni qus min alqurani ma shi'ta li ma alquran bu amé soxla sa xel lu ñëk daj bindal bo ci dogo rek faju ñun ñafi nek rek di dengi dengi, wa ma ngi ñom ku mësa ñëw wax wax soxla aay bu seen xel njëkk a daj moom la ñuy bind du tax la sa aajo faj kus min alquran ma shi'ta li ma shi'ta dama soxla nangam sa xel ni yar ci benn aaya bul dengi dengi demal bind aajo bu fajul ilham la kus min alqurani ma shi'ta li ma shi'ta alquran hajib la hijab la mu ngi noonu jàll bay na ko benn si na laay mu ne bilaa xati xijaaban mastuuran moo tax bu daan tëdd day liimu moom da jàng lu ko neex doo tëdd te alxuraan lay jàng wa jaxal naa def nanu ala xula bi seen xol ya ak na tan ay muuraay ay yëf ko ngir bu ñu ko dégg bi asaanim yëf seen napp ya waqaran diir diir bi saa sa karta ndem tudd nga rabbaka sa borom fil qur'aani ci alquran waaye dafa moom dong wallaw ñu dumbuy ñoom ñëpp joxe ala dabarihim seen gannaaw yooyu nu fo leen di aji fañ noonu ñun sa borom alamu ñooy aji xam bi ma yestamiwoon la ñuy déglu bii ci loolee bu rabbi ne yestamiwoon ba nga xam ne ñu ngi déglu ilayka ci mooy sa njàng mi isum ba xam ne ñun nañ waa mu ngay déyaale di waxtaan ñu mu neen ngir su ngir fexeel la li ñu dee rek is ba ci mu njëkk ba mu ne is yoqol bu wax saalimoo na is yoqol ba nga xam lu ngay wax saalimoo way toñ ina in tattabiuuna in topp la laal ju leen way nu way wajjo xam ne masuuran dafa nek ko xam ni ku jabeer la ay bi nak moo tax ñi nga xam ni dañ weddi ni yént bi dañ ko liggéeyoon ci fa xig naa ñu ne kon ay bi dëgg la ñom fi ñu ne kon bi da fay doon dëgg laal ju la masuuran ñu ne kon ay bi da doon dëgg waye ñom seen gis-gis mo gatt yénent lepp lu dal doom aadama mën ko jott ba mu des laal xel ma xel ma wala xol ba wala làmmiñ ba fëkk déedéet dana jaaxle dana xiif ay yonent laa ay yonent bu mën a doon dina jàq dina jaaxle dina xiif dana mar ab yonent bu mën doon nag du loolu mooy mooy jëfu doomu aadama waaye la nga xam ne mooy yàq mooy yàq mission ba kenn du ko laal mukk xol ba xel ma làmmiñ ba mukk borom bi ne unsul na nga xool nag kay fa dara boo naka la defee moom seen borom naka la naka lañ defee ñoom làkk ñel yonent bi am sala ay léeb nan ki gisaane kallaag ki woy kaag laag fa daloo tànku nañu falaa yatatoon falaa yatatoon duñu àttan sabilan yoonu dëgg wa wa qaala wax nañ ñoom ñi nga xam ne ni dekki amul isa kunna ndax nekk nañu ndax ñun nekk nañu isa man di ay yàq urufatan ak di yax yu fënëx fënëx inna mo ndax ñun la ma boosona ñu dekkal lañu xalqan bindin boo xam ne jaji dan dafa nekk bu bees bu ne ah kay bu leen neexee kono nekk leen ci jaar di ay doj wax ji dana wala ngeen di ay weñ da ngeen dekk de bu nekk weñ gu ñuul sax da ngeen dekk waat de aw xalqan wala ngeen nekk bindin boo xam ne bi maa yekk mburu loo xëy dana màggul lool fi doorikum seen dënn yi da ngeen dekk de فريقون دا يغني كون نك من يعيدنا انا كان موي ديلو نيو تي دوند با كون من ادي كيغا خامني فاتلكم مولين بيندون مولين بيندون اولا ملك يوم نجاكو مولين دي ديكال كون نين فاتيون فاتيون فاتيون قدونا دا ينغل بو باخ ليك تي روسوم سين بوبي غير ييمو وي خولون نيغي واخنا غير سبوتي نيكون نك واو لولو متا كاني لو مو ديك كاني لا غن غن دنا ام بون ونا عتا ان يكون امن مو نيك قريب ندول يوم يدوكم زوم لين دوو fa tax tajiboona ngeen wooyu ji yéen ñëpp boo ca xabru ya bi am di ànd cantam bi xam di bëret gën ca xabru ya amul neex bi xam di ànd ak moo ñettaxe nag ñettaxe ñoo koy def bi xam di allahumma bi xam bi xam di subhanaka اللهم بحمدك نتخلو لنا بن دكي سبحانك اللهم بحمدك لذي نخ بلن بنا واتزونو نغين جرتو ان لبتم سقو لنا جادنا بي إلا قليلا ندري لو نيو نيو نيو نيو تانغي وقل وقل لعبادي نيو نعم سمي جام ني موي جولين ني يقولون نيو وخ نك نيو وخ سمي جام نتي وجو خمنا هي موم اعطنو ما بي رفل ndax ina seytaane seytaane yan soo dafay yàq ba dem seen diggante ina seytaane seytaane kaa nekk na mu xadda woon mu biinan noonu bu jur nooñal li insaani ñe doomu dama rabbakum borom seen nag moom alama ajo xam bikum ci yéen ñu ñesa bu ko neexee yarhamkum mu yërëm leen ngeen tuub nekk julit pire aw ñu ñesa wala mu sab ko yuasikum mbugal leen mooy dee ca kéefar ga wa ma arsalnaaka yebulu ñu alaykum wakkilan nga forcé leen pour ñu gëm déedéet wa rabbakum sa borom alama ajo bi man lépp loo xam wala képp koo xam ne fi ngi asamaan juróom ñaar ardi ak suuf wala qad faddalnaa gënal nañ ñun sa borom badal nabi leen ci yeneen ci badin ci ñeneen ña Moussa wax na borom bi nekk kalimullaahi Ibrahima nekk xalilullaahi yonent bi nekk xabibu laay ñu rañaane ko Isa nekk ruuxu laay mhm. léegi nag ñoom dañ ko contrôle yonent daaw yonent yàlla daaw la dañ ko borom bi xam ne daaw nag yonent la maa ko yónni mu ne wa atee naa jox nañ ñun sa borom daaw alayhi salaatu salaam sa booran ñoo jox sa boor muy téeréem ba ñu ne xul ko yow doon na nga woo si ñi nga xam ne sa antum ñoo déclaré ni ñoom ay yàlla lañu min doon ni wëlil borom bi ne malaaka yi wala Iisaa wala Useyru duñu moom nag ka sodri ñori loran ku mu leen déedéet wala taawil jàng na ëlbati mukk walaayka lazina ñooñu nga xam ne yi doona ñoom ñu ngay jaamu walaayka lazina ñoom li nga xam ni yi doona ñoom ñu ngi leen di jaamu ñoom ña ñuy jaamu yëpp tax na ñu ngay tàkku laaj bi ci seen borom al wasilati jegeñ ayyuhum aqrabu ku gën ku leen ku la jege yàlla ci ñoom gën laa bëgg a jege yàlla. yàlla suñ borom ne na yàlla ne na koo yaakaar yàlla la yaakaar muy aaya bi borom bi ne na koo yaakaar yaakaarul ku dul yàlla nga déglu aaya bu jag nag ne ulaayika ñooñale allasina ñi nga xam ne ye doxoona ñoom yéefar ya ñu ngi leen di jaamu du leen yàlla yëpp toqoo na ñu ngi sàkk ñoom ñooñale bi seen borom wasilata jege mu ne ayub nag comme ci mën a doon nag badal la ca yëpp toqoon na xam nga waa bi mooy mooy fayal bi ayub badal la ca waaw ayub ku mu ci ñoom akal bu gën a jege yàlla mu ngi sàkku du gën a booy jàng bu nekk ñaari isib sa sëriñ xam ne muy jàng sa sëriñ ñeent bu ngeen dégg wax ci <laughs> booy waxaat bi lu ñaari isib sa sëriñ ngi jàng bis bu nekk ñeenti isib bay waxaat bi ne ñaar fukki itam mu ngi jàng waxaat bu nekk fanweeri itam booy naafila ñeenti rakka mu ngi naafila juróom ñeenti rakka ayu aqrab ku la gën jege yàlla gën laa bëgg yàlla ayu aqrab ayu aqrab yàlla la yaakaar ndax lañ ñam moo tax lañ ñam bu mos ko moo tax duñ nelaw mukk déedéet duñ ko nangu duñ ko nangu mukk ñu ngi yaakaar rahmatuhu yërmandeem bu yaqaafu ñuy ya ñuy ragal xasaab ba mbugalam ba inna asaaba rabbika sa borom kaa nekk na maasuran dégg ko de du lu ñuy moytu ku xam xel da nga ko moytu de da nga ko daw waqit wa in min qaryatin amul benn dëkk boo xam ne ñun sa borom bëgg nañu xalak dëkk ba ilaa noonu ñun sa borom moo li ko danañ ko xalak xam ne yomal qiyaamati njëkk bi su taxawaay ba njëkk bi su taxaw mooy nit ñëpp dee aw mu asiba wala ñu mbugal ko asaaban mbugal moo xam ne sadiidan mu tara tara tar la borom bi ne kaa nekk na saa ko loolu nag ci kitaab bi ci lay mahfuus mastuuran lu ñu bind wa ma manaana borom bi ne xaayewul léegi nag waa màkk ñoom yonent bi yow yaa yàlla la yónni yàlla sa waay la xam nga lu ñu bëgg màkk daf bëri doj na doj gi dem ñaam fuñ ñaam fuñ liggéeyee tey suñu maam yi dee woon nañ dekk bu ñuy xamal ñu yawmal qiyaama dafa nekk kon ñu gëm la kon ñu gëm la de boo ko defee ñu gëm la yéen bi commencé ñaan nag di toroxlu di ñaan borom bi ko bu déedéet bu sonn xeet yi mos ñaan lii ma def ko nanguwuñ damay leen di jeexal tàkk sa xeet moo tax li liñ bëgg nii du ma ko def ndax ma ko defee te nanguwuñ ma xalag ñoom ñoo fi ñoo fi nekk abadan kon du ma ko def moo tax mu ne ko ma manaana xaaye eh, woon ñu an su lu ñuy dal di yebal del ayaat yi ci kaatu yi nga xam ñoo ko sàkku ñoom waa Makka ilaan kasaba dada wedd woon ne biaa ci moom al awwaloona ñu jiitu woon te ñu ko ñu ko weddee rek ma alal leen te sa xeet ñoo fi def abadan moo tax du leen ko jox waaye te jox na ñu sama mooda naax dëggalam ga mu nekk musulatan di aji leer naññ ko sàkkoon parce moo tooñ nañu biaa ci gëléem googolee ma nutulu borom bi ne duñu yónni dañu yebal bayaati ci ay kawteef illaa taxuyu fan lu muy xupp jaañu pour ñu gëm rek ba fàttalekul nag xol naa ba ñu waxee lakka ñee lay na la baka borom daal ah te na mu dara nit ñi xam ne seen mbir biir ak biti bu ma jaxla dafa ñu o yàlliti li nga xam ne mooy gént nga xam ne gis nga gisoon gis gis nga gisoon ray naak ñoo la ko noonu ba nga rañaanee dafa ñu ko laa fi na mu nekk li nga xam ne mooy fitna dinaa ñeen nit ñi mooy waxtu mu karama dañ ko weddi woon nag ñi murtat ñi murtat wa jël ru'ya li si aray naak nga jëloon moom jaxaran te bañ la rañaanee yóbbu la ca kaw muy isra wal mi'raj boo jógee Makka dem lañ la wonoon nga ñëw wax ne ko ñu weddi la seen fitna la woon de seen fitna la woon bari ci lañu mutatee bari ci lañu weddi xam nga ru'ya ci waxu arab pire mooy gént ki daf du ruya la gis ak bët bu ñu nee gis ak bët bu ñu na ko gisee dafa gaaw nag gaaw boo xam ne moo tax mu ne la comme mu tax la nag janoo la janoo mooy a ruyatu ak ba ñu ruyaa rek gént mais na mu gaawee nag moo tax borom bi firee ko lu mel ni gént moo moo tax ma ne ruyaa mais ruyatu la de wa sajaratan ak li nga xam ne mooy garab ga almal'una te bu ñu rëbb lu ko daan ci alxuraan ji muy saqoom ni ci biir safara ci biir safara fitna la xam nga lu tax mu nekk fitna ñoom ñoo wax ne safara dafa garab nu koy saxalee mënuñ ko gëm di complètement safara day taal garab kon sax ci biir safara borom bi ne fitna ko te saqoom mu ngi ci biir safara ñoom yëpp bëri saqoom la ñuy lekk bu demee lekk ca bu seen bàqee fees ñu mar dem. naan ca ndox mu tàng ma buti yi jóoru ñu xiifaat dama lekkaat mooy sa xub léegi ñoom nag ñu ne annaaru tuxriqu sajarata fa kayfa tumbituhu la lay wax borom bi ne wa daa daañu leen xupp de wa famaa yash'uruun di leen yokku xuppaange illaa tughyaana la mooy beew kabiirun gu màgg a màgg borom bi ne fàttalikul nag idh na ba ñu waxee ñun sa borom lil malaayikati yi ñeel malaayika yi usjudoon na ngeen sujjóot li aadama ñoom ñëpp sujjóot nañu sujjóotu màggal mooy tóoj fa sujjóot sujjóot nañu illaa iblisa xaala mu ne ah, asjudu ndax man damay sujjóot li man ñeel koo xam ne xalaat yaa ko bind ci nan ci ban bu xesew a xesew duma ko nangu xaala borom bi ne ko alaaytuka déggal de doo doo doo ma xamal moom iblis mooy wax ba tey de alaaytuka ndax doo ma xamal xasal la si karamta ki nga teddaloo ci sama kaw la ndax doo ma xamal xasal lesi ki nga xam ne ara karamta yaa ko teddal yaa ko yaa ko gënal xale ci man te ko su jootal la in aqartani wala dem nga xam ne ah, yéexee nga ma la yawmil qiyaamati ci bisu taxawaay ba la tani kan na dana ma gàllankoor zuriyatoo njabootam nga beew looy leen ilaqi leen nar ñu nar ñu néew xam nga dafa waxoon ne ana xalu minu ana xalu minu xalaqtani min naaga wax laa too moo tax ma ne kon nag kii gën du ma ko su jootal xaala borom bi ne ko isam na nga dem demal ñu ngi fi bàyyi nag ba ci nafqatul ula bu ñëppay dee foofu ngay dee nag ba man tabiaaka koo xam ne topp na mu la minum tukkee ci ñoom fii na a jahannama jasaaukum mooy seen pay yow ak ñoom ñëpp jasaan pay koo xam ne moom moo fóoran gu gu mat la ne ko was tafziz na nga na nga këf bañu tatata koo xam ne attan nga nit ñoom bi sawtika baat bi na neex nanga nga musique baat bi na neex na nga sabar na neex bi sawtika waaye lim na nga bijji anit ñoom bi xaylika ca sa fas yi demal ca carte ga teg leen diway way gañe nga teg toog di xaar doo doo julli toog di xaar doo dox mbokk toog di xaar doo dimbale ko tane bi xaylika ak say tànk say tànk doxal dem ci lu neexul yàlla doxal dem taxal fitna doxal dem rambaaje warañ li bi jil nak bi jil lo man wasarihum da nga len bolé ñom ñep bolé fi alal yi alal yu yu riba ñu len riba garaawul intérêt la niñ keuf niñ keuf lek ni agressé nañ sacc fi amwaal yi wala awladi ak dom yi buñ takati ku mën rek mo mën amé rek baxna waye na nga len deul waye du len deul setanu la lu may waaye nag inna ibaad yi eh, naka sama jaam ñi gëm lay si làkk lu ñeel yàlla lu ñeel yàlla ci ñoom benn benn lay mëkk kattan amoo ko ci ñoom wa kafa doy na ba rabbika ci sa borom bi wakki leen ci aji wattu leen de rabbukum seen borom li si ki nga xam ne yus ji moom mooy dawal eh, la ko ñeel leen alfulka gaal yi bari ci géej gi yi daf taxoo na ngeen sàkku sàkku na ngeen sàggandiku ñu fa ci nga jëlem dafi commerce ino borom bi nekk na mu duru doraa ngi muy tartari jamono bari ci géej ngeen bëgg a lab dana dina mu sàkku anu dana mu sàkku leen man doona ne yéen yéen a ko ku nekk nangu ne yàlla kenn la illaa dul moom ku nekk ngi ñaan borom waxtu boo xamee ne ngelaw li ñëw na gisu koy yëngu ngeen nangu ne yàlla kenn la maa ne jaaku mu leen mosulee moom ca ngeen du mooy bàyyi tawhid ba ka nekk insaan doomu adama nekk rek a war a ndiwe dafa kon borom rabbina aamintum ndax da ngeen wóolu an yax su mën loo bi comme ci yéen yaannibal barri ci wetu jéeri ji comme nañ defal xaaroona aw yu salaw la mu yebal aleykum ci yéen xaasiban ngalaw jëmbare ngalaw doj comme nañ defal ñu ci yéen ci yàlla loolu yee su ma laata jidoo topp ngeen am lakum ñee leen wakki leen ku leen wattu mukk nag am amintum wala da ngeen yaakaar da ngeen wóolu an yoxee la ko mu delloon fii ca géej ga ngeen lab ci taaran beneen yoon oraa mu noon taat oraa beneen yoon fa yursu la mu yebal aleykum ci yéen xaasiban ngalaw lu riddi na riddu ko ci ngalaw yéen ñëpp ngeen lab ci biir ga fa yuxriqukum mu labal leen bi ma kafartum ngir la ngeen weddi suma la laa tujuroo ngeen am lakum ñe leen xale naa ñun bi ci loola te bi benn aji topp kuy dimbalé di ngeen ka am nak borom bi ne wala qad karamna teral nañ ñun sa borom bani adam ñoo ko gënal moom borom ak aadama ñoo gënal ci mbolé minde fi nim jubé nim fasahé nim fasaaxee xel te fu neex lek lu neex sol lu rafet mom kenn rek sol lu set top set dugg fu set sangu ba set boobu rek xayawaan yëpp moom kenn ko am te nag du aadama xayawaan la de moo tax mantiq ñe la boobu mu bëggee xam ne aadama noo koy noo koy xàmmee ne eh, xay al insaanu xayawaanu naatiq wax wuy wax ak bu ne xayawaan moo yëpp a yem foog nga ne xayawaan boo xam dafay wax xar xayawaan la nag fas waaye duñ wax borom bi ni waxamal naaw ñoo leen yeen fi bari fi bari ci jëri ji ca kaw daay baya wal bari ak géej gi ca war sax naam ñu leen wërsëgal war sax naam mu ñett baati ci yu tagan yu dagan yi wa fadal naam ñu leen gën naa kasirin ci ñu bare bare li man xalaat naa ci lañ bind taf di leen ak ngënal nag loolu loolu iblis bañ nag loolu iblis bañ borom bi ne fàttalikul nag fàttalikul yow mën na don bis ba ñuy woo ñun sa borom kulla unaasin bépp nit bi maamihim ak seen njiit la e yow xeetu du tàngam kaay yow borom kër gi kaay ak sa njaboot bi maamihim bi maamihim yow borom dekk bi chef de village bi kay yak sa wa dekk bi yow chef de quartier bi kay yow yow maire bi kay yak sa nit ñi yow gouverneur bi kay yak sa nit ñi yow préfet bi kay yak sa nit ñi imam jakk ji kay yak sa mbolam ci gannaaw imam juma ji kay yak sa mbolam bi imaam ku nekk ak ñu nga jiite dañ leen wo bi imaam yow mi am société borom société bi kay yàgg sa mbooloo mi yow borom yow commerçant bi sa employé yi kay yàgg ñoom yow borom oto yi yaa jiite yaa jiite transporteur yi yaa leen jiite kay yàgg ñoom kay yàgg yi kay leen seen ki jiite kenn du des ku nekk ña topp dañ la woo bi imaam yi am ñu ne déedéet nag mooy par xeet yi. inti noo xeetam wo inti yàlla ibrahima xeetam wo inti yàlla moussa inti yàlla daawuda yonti yàlla muhammad njiit lañ kon am ñu ne déedéet nag mooy ku ne ak sa jëf ya sa jëf ya borom bi ni fa man ootee ku joxeem ne ko eh, kitaabu téeréem ba bi mu nii ci ndeyjooram ba te mooy ku texe ga fu laay ko ñu yàqoon na yàqal woon dañ jàng kitaaboo seen téere euh, walaay lu mu na dafa leen tooñ de du ñu yokk lu bon la du wàññi lu baax mooy loolu fàttali ñu toll ni fàttiyil mooy toll ni xooli a kenn du ko ci wàññi man ku nekk na mu fiaa bii xamaa daa gumba du gis dëgg mukk foofu moom nag fi aaxirati yawmal qiyaamati xamaa dafay gumba de du gis yoonu mucc déedéet ko xëy na nga dëgg fii yawmal qiyaam doo fa mucc waajur moo gën a sànku sa beneen ci yoon borom bi ne ku gumba fii yawmal qiyaam ngay gumba rek Mhm. borom bi ne wa in kaadoo xam nañ ñoom yéefar ya la yaftinuunaka ñu fitnaan la xañ la si ba xam ne awee naa ñoo ko léegi mu jëm ci yow li tax tere ngir nëga duru ane naa ñun xëy na wala dul moom nag bañal bañal mhm. benn giir bu dëkk taayif ñu ko saqiif giir la ñu yonent bi duñ dugg ci sa mbir danañ jox ñu ay jikko yoo xam ne dañ ko ci toroo ay jikko yu ñu soo ci arab yi dong nag bu dul loolu nag duñ dugg ci sa mbir mi mukk ne ko ñun bi njëkk mooy duñ joxe asaka benn beneen bi mooy duñ nangu jiyaati defuñu ko beneen bi doon duñ julli nanguwuñ ko duñ julli de bu ñu julliwaat bu ñu julli duñ rukkoo duñ si jot déedéet mu ngi noonu ne ko nag kon bu fekkee lii la d'accord nañ ci yéen bi ne ko yeneen bi nag leneen dugguma ci defuma ko ba mu wàcc aaya bi ñu ne ko loolu lañ bëgg bu ko defee nag suñ xur wi nga def ko xaraman aminan comme ni ñu def màkk suñ xur wi ko xaraman aminan comme ni ñu def di nga def màkk léegi bu la arab waxee ne la lu tax nga def nga def lii nga ne yàlla ma ko digal yéen bi ne pat ñu yaakaar ne di leen di jox digal yàlla wax ci aaya bi ne ko wa in dëgg-dëgg kaa doo xam nañu ñoom leef too naka ñu naa la ani lësi wala nga xam ne awxey naa wax yi nañu ko ilayka bu jëm ci yow yi taftalee ngir na nga dugal ale naa ci ñun moom loolu lañ bëgg bi kon boo ko defoon la taxas doo jàpp la nga nekk xale leen di seen xarit wala laa an sabat naaka fekkoon du ñoo la saxal ci dëgg la kitta konoon da nga xaw la kitta jàng lépp ñoom sa yaan li nga xam ne mooy jàng koo xam ni xale leen gu néew la te boo jéngoon dey ah du baax de isan la boo fekkoon da nga jéng laa sax naa ko ñu mosal la defal ayaati mbugalum adduna mu ful boo defal ma maate mbugalum yomal xiyaam mu ñu ful ndax yaay kilifa gi kon lu waaye gara gaa yi war am benn yow kon ñaan ngay am su ma topp daa te ñu loo am lakk sax ñeelaan naa ci ñu nasiran aji dimbale mukk léegi nag waaye yow yi nag yonent bi bu dee nga xam ne yonent nga demal saam yàlla mosu yónni saam nga nekk yow kenn yaa ñu nekk fii ci Medina na yàlla la yónni bu dee yonent biir nga demal saam fii ñu ko moom borom bi ne ko wa in kaadoo xaw nañu lee tafi soo nekka ñu naaw naawal sa furu fara jëleel jëleel fii min addi ci suuf si xaw nañu laa jëlee ci suuf si de ngir tiital sa furu fara borom bi ne kon li yuxtu joko ñu génnele bi naa ci dëkk bi wi seen ko doon da nga génn fii laa yelbisoon laa yelbisoon du ñu sax xalafa kese gannaaw ci dëkk bi ilaa xali lan la mooy lu tuutee tuuti ñu xaleku suna tan man xad arsalna li mooy yoon ñi ma yónni man sa borom xam la ko ñu la jiitoon utu laaj suñu ndaw ñi borom bi walaa ta doo fekk li sunu taa li sunu taa ñaan suñu yoon wi tax leen aji ba aji remplacé déedéet walaa tajib doo doo fekk li sunu taa ñaan suñu yoon wi tabdilan tahwilan ak wotte ak ak ëlbati kenn du ko ëlbati aqim salaata nag taxawal julli juróom du la gisam si ñeel li nga xam ne mooy jengal ñëfu jant ba na nga ko def ilaa xatuqi layli ba ci lëndëmu guddi ga def ko tisbaar euh, dugg na takkusaan dugg na timis dugg na gee dugg na wa quraan al fajri ak alquraan al fajar ji na nga koy jàng juróom subaa ngi noonu inna quraan al fajri alquraan al fajar kaa nekk na masulan du ñu teewee malaayka yi nga xam ne ñoo xayti ak yi wàcc ñoo koy teewee min lay ci min lay ci guddi min lay li fa tahajjat nga naafila fa tahajjat na nga bi ci moom ci alquran mu nekk ndorante làkk ñeel la mu nekk farata ci moom nag kon moom naafila farata la ci moom naafila farata la ci mhm. bu ci xetam wi nag moom nga ñeel la mu ne ko an yabadaka amal la mu taxawal la taxawal la bu ko sa borom maqaaman mahmuudan plaque bu ñu sant lool te mooy nga ramu jaam ñi ci yawmal qiyaamati ñëpp ay jàq ñëpp jàq bu ñëpp jaaxee jant bi ñëw ba ci asamaan su jege fii léegi mu boppi doomu aadama yi lu néew lay doon safara si peeg doomu aadama yi mu làkk yi doomu aadama yi juróom-ñaari sàppe wax nañ ko ci gannaaw ba kenn nit junne nit ñoo koy dëgg junne ñoo koy dëgg du ko yëg wala téeméer junne sax ñoo koy dëgg du ko gi mat ñëpp daal duñ ci adam du ko dimbale ñu ramuñu ci sa borom nga tinuñu maanaam nga tinuñu tinu adama ne ah man nag sama bopp eh, ndax dama lekkoon garab ga xam fa lay mujj kon da ngay dem ca noox ñu ñëw ci yonent Yàlla noox mu ne ah man de dama ñaan dama dama wax sama nit kenn nguur ma wuyu xam nga sama bopp laatal xam ngeen kan, def ndax dama dama ñaan sama nit ñaan bu bon a bon bon ñaan gogo nag mom moom moom jaaxal de len ci Ibrahima ñu ñëw ci mom mu ne ah man dama wax lu amul ñetti yoon man Ibrahima wax lu amul ñetti yoon waye kon nak dem len ci musa nak ñëw ci yonent musa bu ne man dama ray nit di man kay mom ma puñu problème dama ray nit dem len ci Isa ñu jé sa mu né man dañu ma def yalla ñu ngi may jaamu dama ci Muhammad ñepp ñëw mu né ana laha ana laha ma ko yelloo maa ko yelloo ñaan borom bi ndigal su jott ci suuf tag borom bi ñu ne ko yëkkati sa bop bi waxal ñu dégg la ñaan ñu ramul la sal tuqta mu yëkkati borom bi boobu nak bu ba nag la taxawa bi jeex tak tak ku dem dem aljana dem fa ku dem safar dem fa léegi nag mat bi leen yoon ñaaral mom mu ko xamne gëm gëm nga yalla lu mu neew neew safara do ko sax inti mu lay ram yubul la aljana waaye yére bu dañ koy fóot motax tax tim dañ koy Baga kon ñi nga xamne dañu ay tak ñoo ñi dañu dugg ay safara ba nga xamne set nañ ñu doga dem aljana inti mo leen ram moo tax nga degg ñu naan waxi na asaba naari logo loolu ko wax aljana gàcc kon ñi la demé borom bi ni waxul waxal ne bi sama borom addiqil nii bañ ko waxee ne ko demal na gàddaay nag ma dugal Madina mu doqale siddiqin dëgguwaay bu dëggu may ma dootuma geesu màkka laa bëgg wax nii na ma génnee màkka moo ko jël siddiqin dëgg de loolu laa bëgg wacca na li ñeel mi lu tukka fi yow sultaanan li nga xam ne mooy kattan ni sëriñ bu aji dimbale waxul waxal ne jaañoo na mu alaa dëgg ku saaxa dem na mu nen na albaatalu caaxaan ina baatala caaxaan kaa nekk na soo xam nee naa koon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé doon makka Mukarrama ci fatu Makka fekk na fa ñet témir yalla ak juróom ben fukk ci ay xërem mu leen di door nak ñuy daanu té kat nga nga yëg ni doole dooleem ja doole kese la de du moo gisale déedéet bu du moo gisale bu leen joxe ñaar ñu daanu doole doomu adama kese la ñu la te yéen taal ibrahim mom bu muy bu muy bu muy gor xërem ya du fu seen meññ ñaq mu téye ban bant yonent bi bant dóor rek ñu daanu laal rek ñu daanu kon moo gaa yi doole rek mhm. ëpp gaa yi doole foofu yoon mhm. juróom-benn fukki yàlla ndax ñett téeméer benn fukk ak fukk yépp màpp pour kaaba gi mu ne ko nag wa nunazzilu danañu wàccee min alquraan yi ci alquraan ji ما نحن هو مسيبا هو داي فاج داي فاج جانغرو داي فاج رير فان نقول لي القرآن ما شئت لما شئت منو مو خان لي كم فجوا القرآن أم ولا فجوا الله واحد أنت ما كوخ من نك نك ورحمة الله يرحم المؤمنين نيل لي قبل ما يجري ني ولا سيدوا لي يكمل كنك زالي مو توني إلى قصان نرحب تا دنيو بيدي سبورام halal insani ci doomu adama xara da mu dum moy wona musari bi jani bi joy tam nga wi sama so bukul ali asar bi xana moy ñak wala tartaru jamono kala mu nek yi osan ko xamne xade wa ko la jël man yalla ko ne len kullun ko mu ci yeen yamal dafa jëfal sakaliti te dam ko bëgge fara bu seen bor alawma aji xam man ko xanu ada mo gëne gëne ko sa bilen ci yoon way salu naka dañu la laaj hanni ruhi yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wa maktal mukarrama ñu dem ci yowóot ya di leen kii de ci ñun la génnee nee na moom yàllaa ko yónni léegi nag yéen da am téere yéen amuñ téere léegi nag moo tax ñu leen di laaj yéen borom téere ngeen léegi ñu ne leen bu ngeen bëggee xam ndax yónnent wala du yónnent laaj leen ko ñetti yëf ñetti yëf bu tontoo yépp du yónnent bu tontul benn du yónnent bu tontoo benn yenn bàyyi yenn yónnent la laaj leen ko gune yi nga xam ne ci jamono yu yàgg ya dañoo demoon seen mbir mbir mu yéeme yéeme la laaj leen ko jëmm ji nga xam ne dox na dox na penko xarfu wër na àdduna bi yëpp mbiram ko yéeme la laaj leen ko laaj leen ko ruuxu mën na ma ci asaabul kaafi ak ak sul xarnayni ak ruuxu gars yi laaj ko leen dana leen tontu waxut insha allahu wax yu ba taxaw taxaw wax du insha allah wax lu yàgg yàgg yàgg yàlla wàcc aaya bi ko ne kaay ma kaay ma tontul la nag nekk wa yasalunaka daañu la laaj xan ruux yi ci ruuxu ku ne leen a ruuxu ruuxu daal min amri rabbi mu ngi tukki ci sama mbiru borom su borom ma ko ma ko xam bu la mi ñu tuuti ba ko ba comparé xam-xamu yàlla wala in si na wala ndem sabon nañu nasa ba nañu demee bi si li nga xam ne awee na waxee nañ ko li mu lekk mu jëm ci yow alxuraan ji su ma laata ji doo fekk lakk ñeen la bi ñun bii ci ñu jël a naa ci ñu la kiiran benn aji wattu borom bi illaa wante kay rahmatan ñu la ko jox mu nekk yërmande min rabbika tukkee ci sa borom inna fadluhu nekk nga ne lam xakkaa nekk naa nekk yow kabiran dalu màgg màgg màgg ñoo ko wàccee ci yow قلنا لن لا انت ما اتين دم دجوانا الانس دم ادمي وجن اجني على يات بني بملا هذا القران قال من القران دي لا ياتون دنيا بملي كمم ولا كاد نك بعدهم ñenn ci ñoom sëriñ di dimbale di bëri ñeneen ñeneen ñe mukk dante dañoo dimbalante itam mënuñu indi alquran di mel nii kon yàlla la ko wax wala qad sarafna borom ba ñu leeral nañ nañu li naati ñeen ñi weesal qur'ani min kulli masalin bépp lépp lépp la aajoo leeral leeral nañ ko fa ba bañ na mooy aksaru naasi lépp nit ñi illaa kufuran nar ñu nekk da koy weddi rek waxul waxal ne leen lan nomina duñ gëm lakk ñeen la waxaana wax nañ ko ñoom yéefare la nu mu ne làkk duñ gëm ñeen la xataa tu fajjira nga nga balal wala xataa tafjura la ñeel ñu mi naat ci suuf si yéen bowaan la jël waxee noonu en tout cas wala mu nekk lekk ñen la janatun min naqilin tukkee ci ay tàndarma wa inabin ak ay sardin fa tufajjira nga balal an xaara euh, dex yi xilaalaa ci diggante muy dox tafjira ak balal aw tusqita sama wala nga wàcc asamaan si kama santi ni ko déclaré ak ñun ki tafat ab dog it ñu xam ne yàlla moo la yónni aw taati yow lu mu ñëw nga indi bi laa ci yàlla nga wala nga indi yàlla ci boppam malaaka malaaka yi xabilan ñu moom jaxaran yàlla aw yokkoon wala nekk na ñaar lakk ñeel la baytun nekk boo xam ne min suux defin boo ci wuru sa xaalis mu naat lool aw tarxa wala ngi yëkki samay asamaan si ànd ak escalier te wala noonu du ñu gëm lu ruqi yeeka ñaar sa yéeg ji xataa tuna seen dara nga wàccee xan laaj ñun kitaaban téere boo xam ne naqaroo dañ koy jàng donc كوني لك سبحان ربي سلا نيام بون سما حال كنت نيك مكا الا بس موي من ديف سلا بو نيك نداو كوم ني في يالا يون نون او ما من حنا صبر بنا يوم نيني ايو نيني گم اسجا مو لا نيوي دا نيب الى خلو نار ني وخنان ابعث الله تدن يوني يالا بس من ديف سلا مو نيك نداو ديجيت ني ني ملائك كوني لك كان بو نيكو نمو fi addi suuf si malaykatu malaaka yem sona buy dox nekk ñu malaaka yi di dox mutma iniin nekk ñu dal nasal naa kon ñu wàcce alif ñoom mi samay booj asamaan si malaaka am malaaka rasul mu nekk ndaw waaye amut ci nag qul nekk afa doone billaay ci yàlla shahidan aji seede bañ sama diggante bañ ko ak yéen inoo borom kaa nekk na a mooy aji gindeeku wa man yudil loolu fekk loo ñeel loomu ñeel leen ay soppe yu di méngoo min doon wali si borom wan wa naasuruhum daañu leen fang yawmal qiyaamati keroog bisu taxawaay ba daañu leen fang ñoom ñëpp xanaa daaw jooyum seen cëlmaaye ñuy doxee karkanam ba xam yéen ñu way gumba bu ko man ñu da way nekk da way lu wasu man da way tëx wa waam seen taf a jaanama ku la maa xabat waxtu woo xamee ne gémmañ si naaf ñu yokk leen sayaran safaru gën a métti nan leen nag saalika loolu jasaahum mooy seen pay ba nam nako ñoom kafaroo dañoo weddi bi ayatina ci alquran ji wax la ñu wax ñoom ñi nga xam ne ñu weddi dekki a isaa kunna ndax ndax nekk nanu isaa ma da i yaq urfaatan ñu funax a inaa nag la moo sona dañu dekki xalqa ñu nekk bindin jëjin boo xam ne bu beese la borom bi ne awalam yaraw gis baa ngi noonu xanaa ñoom dañoo xamul ne ana laa nak borom bi la tamit ki nga xam ne xalaqa samaawaati mu bi asmaan juróom ñoom arda ak suuf xaadiru la wala yow xanaa dañoo xamul ne ana laa rek borom bi da si borom bi nga xam ne xanaa xas sama waat yi mu bind asamaan juróom-ñaar wala àdd ak suuf xaajaru ajaatan la ala an yaxu na ko bind mit loo kem seen xanaa xamuñ loolu bu jaarale loolu mu ñeel leen ajalan ab dig mooy dégg ak dekki ga laa rab di sikki sàkka fii dina ca fa abaa bañ a saale moo ne way tooñe illaa ko furoon na rëwee di yàlla rek nag xul ne leen law kuntum law antum fekkoon yéen tamlikoon na da ngeen moom xasaay na rahmati rabbi ma nga ci ni yërmande boom bii isan la am saktum ngeen jàpp du ngeen joxe da ngeen nay xasiyatal infaaxi ragal dépassé wa kaa nekk na insaan doomu aadama xaturan ngottaakoon wala xa daatinaa jox nañu Moussa ci sa ayaatin ñeenti kawteef yoo xam ne baynaatin dafa leer nañ ñi parce que al na nga laaj bani Israaïla laaj leen is jàmm la ñëwee nga xaala wax loo ñëw firawnu inni nekka man la asunaka dama la jortoo Moussa nga nekk mashuuran ku ne ko laqad alimta xam nga ma anzala wàcce wala haulaay gaa ñi ilaa rabbi samawaati ndara ay layu leer nañ nekk waalaate ma yaa yaa kuñ xalak faaraada bëgg na moom firaw na an yafita an yastafisahum mu génnee leen ca place ba mu naa di ci suuf sa borom bi dafa axaral naahu euh, labal nañ ko wan aw ñaan nag moom jëmee mboole seen waqul nañu wax nag min ba di ci gannaam euh, li bani israila uskunu na ngeen dëkkee al arda suuf si bisaa jaani ñoo na mu waxtul aaxirat yi yoo xam ne mooy dawal yomal xiyaama ba jinaa dañu fi dañu fi ku jin la fi fan nga nekk mboole seen kenn du def bi làq ci dëgg anzalnaa lay wàcc alquran ji bu laq ci dëgg yi nasal la wàcc wa maa arsalnaaka yéen wuñ la yow aleyka salaatu wasalaam illa mubasiran ndara nga di béglee ñi nga xam ne ñoo nangu gëm àjjana wa nasiran wala nga xuppe ñu weddi wa quraanan alquran yoo xam ne farax naa ñoo ko tàqale ñaar fukki at ñett ci lañ ko wàccee li taqaroo ngeen nañ ko jàngal naa ci nit ñi ala muksin ci dal ak dégg wa nasal ko ak wàccee nag nasallahu tansiran muy ndànk par ndànk ndànk par ndànk ndànk par ndànk nasallahu tansiran xam nga bu ñu ne ansal naahu mooy dañ dafa ñëw benn yoon bu ñu nasala dafa ñëw ndànk par ndànk inna ansal naahu laylatul qadri benn yoon ci asamaan su jege fii ba ci lay seti ba nag mooy par e yoon xew lu ñëw lu xew am lu ñëw. moo tax ne ko nasalnaahu ñoo ko wàccee ñu sa borom tan ci lan nag xul waxal ñeer yéefar yi bii gëm leen alquran aw laa tuminoo wala bu leen gëm ñe seen gaa ñi nga xam ni oto joxeef na leen aleen ma xam-xam min qabli yi ña ko jiitoon muy alu kitaab sa yola sa yuttulaa dem jàngeef na alim ñoom yaquloo na dañuy rot li at xana jot ca sikkiñ ya su jëndawee su jóot yaquluna ñu ngi naan subhaana rabbina sali ñeen borom in kaana wax du rabbina dool sumu borom dama foolan la ñuy def wa yaquloona ñu ngay daanu di rot yet ko ne ñu ngay jooy si du mu yokku bi dafa sëgg sujjóot nan yaa allahu yaa rahmaanu yaa allahu yaa rahmaanu abu jahli ne muhammad daf ñuy xaayee suñu yàlla yi te mu ngi woote mu ngi ñaari yàlla tey mu ne allahu ëllëg mu ne rahmaan te mu ñu koy xaayee te ñun ñoo xam ci raxmaan mooy raxmaan yamaama raxmaan yamaama mooy musulmal du kasaab mooy raxmaan la ñu nag kii taxawul fenn yàlla tax benn benn benn waaye na ko ci ñoom ne ko summi tabil majdi yabnal akramina abban wante xaysul wara la shirta rahmana la ko wax summi ta na la waaye def na la bil majdi ci tedd nga ibnul akramin yow doomu ñu baax ñi aban ci baay wante yow xetul waraa yaay kii xettali mbindeef yi laa sart yàlla buñ laa silt yàlla buñ dël laa silt yàlla bul dëñ rahmaan di di rahmaan léegi nag jullit ñi tontu leen ne su muyta bil xof si yem na axbas yéen aban wa anta sarul wara laa silta saytaana su muyta bil xof si yaa ngi tuddee lu bon li lu bon lu ne yaa moom tur yabnal akhbasina dom way bonni aban ci bay wati usul wala yegni wi ci midi la ci yalla yàlla buy dem seytaana nek di seytaane borom ne ko kul waxal ne ne ud'u len bu len allah yalla ud'u wala bu len neexee ngir woo kan rahmaana bu len neexee ngeen ne ko yaa bu len ya ngeen ko ayam ma tadoo ñun ko mëna wowe rek ci ñaar tur yii fuloo ñeel ne ko al asmaa tur yu xusnaa sellee mu juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent ayama tuddoo ayam bi nekk ismu sakkin wa jaasimin day jësam ñaari feel moo jësam tëddoo bi mu jësam tëddoo bi ñoom ñaar ku nekk dafa liggéey ci sa morom ayam moo jësam tëddoo tëddoo na sab ayan bi muy ma ful muqaddam mu nekk ko bu la neexee waxal am na téeméer tur yi manqué benn yëpp ya mu ngi ko bind foofu nag borom bi ne ko wala tuqaabir wala taxeer ka bi salaatika boo julli bu wax ca kaw a kaw wala taxeer bu bul biral ca kaw a kaw bi salaatika sa julli gi wala booy ñaan bu biral ca kaw a kaw di firi ñaar yëpp wala tuqaabir bu yéen wópp bi ci moom ci julli ga wala ci ñaan nga wab tax ne nga sàkku bañ a sàlle ka diggante biral ak li yenu sa beneen ci yoon waxul waxal ni du jant yëpp lillahi sax na ñeel yalla bis yalla mi xamni lamay ne la wala dan dom wala ñu ko nekkul lo ñeel ko sërikul aji bokk ci mukk ci ngorom gi dedet wala ñu ko nekkul lo ñeel bon win aji dimbale min ne zuli ngi troxte amul de wul kenn wa kabiru nanga ko magal takbiran ak magal kon eh, surtout kafir ñu tambali surtout kafir xam nga nag amaguñu sib amaguñu sib moo tax te amaguñu sib amaguñu <laughs> de surtout que yi euh, màkk la wàcc ndara néew mu nekk téeméeri aaya ak fukki aaya ak lu topp ak ñun téeméeri aaya ak aaya kon dañu am nañu wuute daal téeméer aaya fukki aaya wala wala fukk kay wala fukk juróom kay li topp ci téeméer ba daal ci lañu wuute ñii téeméer fukk la ñii téeméer fukk juróom la waaye téeméer bi moo tax saa yu wàcc li waxoon léegi ne waa màkk ñoo noonu yéefar yi yéen waa yéen yow yi kay yenn da ngeen am ngeen téere te ñun amuñ téere léegi ndax dem ko xam Muhammad moom seen téere bu mu ci wal ci tawraat ci tawraat yéen téere duul yonent loolu lañ bëgg ngeen xamal ñun téere léegi ñu leen nag ngeen laaj ko ñetti yëf bu tontoo yëpp du yonent bu tontoo benn yonent la bu tontul benn du yonent muy waa ashabul kaafi sul xarnayni ak ruhu ruhu bi jang nañ ko legi nak moy sa wunsul ci sar wi borom kam leral la nak ni ko alhamdu melowu sax rafet lol sax lol rafet lol bil kan ne sax lol rafet lol ma sëkk sëkk ila ñel na bis yalla mi nga xamne an sa na ala abdi ci jamam bi al téere bii xoolal daf ko maarifa la al kitaabu téere bii xanaa bii ci jàmmam bii al kitaabu téere bii wala muy wala defoonu loo ñeel téere bi wala fii ci téere bi la bi maanaam fii la xew a jën dëng-dëng rëkk xëy man dafa nekk mu jub kocc nag li ñu ngir na waar moom téere bi wala moom ki yónni baasan ci balbal moo xam ne sëddin mu taratal la ñu ne doo tukkee na bégal moom ne na way gëm yi moo ñi nga xam ne yaxamaloon dañuy jëfee salaati lu baax ana sax na ñeel leen ajaraan yool boo rafet la mu ne maa gis sax fii ci moom abadan faw nag ci àjjana ji sax abadan wuyu te ne la si ñi nga xam ne xaaloo ñoo wax ni i jàpp na mu allah subhanahu wa taala dan doom tɩ malawsg yẽ len bɩ tɩ bg dɩ len bɛn kam-kam wala le abaihim tɩ taage ninga kam ma sẽn maam yaa kabra borom bɩ mangda moa kelma tɩn tɩ kaddo tag yik ogdana mu genn bɩ faam sẽn gem n ye yalla am ne doom wag degde borom bɩ in yaqulana waq yõ illa kadiban ndara wax joxam ne fen lamu borom bɩ nek fala laka ay bi li taxna wàcce nag yonte bi dafa waa makkatal mukarama wa makka bañ borom bi ne kon amal na nag nga jàq ba alak sa bopp jaru ko fala laka amal na yow bàyyi xool nga ay alak def sa ko sa ala azarim seen gannaaw gi li ñak gëm te doon say mbokk in lam ne nañ ñu bi asal hadisi ci waxtan wi atafan ngir jaxal ak mer bu ko def ina ñu borom jaxal na def nañu maanaam addi nek ci suuf si yëpp moo xam doom adam la mo xam kay dundal la xar yeeg fas yeeg bëy yi a gàncax yeeg garab yi seeta mu nekk taar taar laa ñal suuf si ñoo ko dem li dem lu woowum ñu nattu leen ñoom daa ñum ñun sa borom ayum ana kan ci ñoom asuma gën a rafet xam nga lañ jëf donc nag wa inna ñun sa borom la jaaloona way def lañu maa laya la nekk ci suuf si mu nekk ndend ndend ndend jur san boo xam ne bu la nga xam ne amul léegi dugg na ki nga xam ne mooy ashabul kahfi ne ko ñu lay laaj gune yooyule kaay ma waxal la leen ni mu demee seen xissa nañ ko bokk jàng bokk ko déglu Muhammad bun Isaaxa moo ko nettali ne bi nga xamee ne waa injil dañoo beew waa injil beew gi jàggi dayo bu ñu jàmm xërëm di rey ay nag di ko def tuur ngir xërëm ya yàlla da ko am ñu fa nekk ñoo xam ne ba tey ñu ngi ci diina Isaa sax ci diina Isaa ja di jamu yalla di wétal yalla te xam nga ñu ngi nekkon room mooy capital nasaraan amon turu nak benn buur bo xamne ñu ko wax Dexyanuus Dexyanuus Dexyanuus buur la bo xamne doon jamu xërem di ray ay xërem di ray ay ya, ngi xërem yi legi nak mu ne ko xamne nango limu woo mu nangu mu rey la ko xamne ne nga wuteeg moom rek mu ray la léegi mu romb a dëkk bi nga xam ne ñoom bu dee ci dëkk dëkk ci lañu ko af soos am ñu ne uf suus turam ci arab nag mooy tur soos bi arab mooy tur suus mooy turam ci arab léegi mu jaar fa ñi gëm nëbbu mu am ay ay agent secret yebal ñuy wasit ñi gëm di leen wisit ku ñëw andi ko ci moom mu digal ko jaamu xërëm boo bañee rek mu rey la di ko def ba gune yi gis ne mbir mi jàgg yow dayoo na ji bari na jàq nañu te ñoom bokk ci kilifa yi nag seen wajur ñoo doon kilifaay dëkk ba yore yore diina Isaa ji nekkoon juróom-ñetti nit léegi nag ñu wax buur bi ne ko am na gune yi fi nekk ñoo xam ne nangu ñoo nangu ñoo tuub buur yebal ndaw mu dem jëli leen andi leen xale ñëw teew buur ne leen lan moo leen tere ngeen ñëw sama diine ji ñu bokk jaamu xërëm léegi nag waa dëkk bii nangu nañ yéen nangu leen léegi tànn leen beneen ngeen ñu bokk ci suñu diine ji wala ñu rey leen te gën a màgg ci ñoom ne ko am na yàlla joo xam ne màggayam ba fees na asamaan ak suuf du jaamu ku dul moom nag bu la neexee nga rey dafa loolu la neex ñi mu àndal wax li mu wax buur na leen baax na dégg naa li ngeen wax léegi li li tax reyuma leen gis naa ngeen nekk ay ndaw moo tax bëgguma leen rey waaye dama leen bàyyi ngeen dellu seen kër ku dem waxtaan sa waxtaan sa ngeenaay xalaat leen bu ngeen demee waxtu bu leen waatee ngeen ñëw fii nag waxaat li ngeen wax dama leen rey xale yoo ko aywa ñu ngi dem buur yegg rek tukki feeñu ko tukki feeñu ko xale xam ne mbir mii du soti ñu waxtaan ñoomu neen ne ku nekk demal seen kër jël ci seen wa kër dund la ngay jël na nga seet agir wàll ga la des na nga def yóbbal ñu génn dëkk bi ñu d'accord ci dema dem ba ci doj ñu wax yan julloos aw doj la fa la xumtuma nekk ba ñu dem nag romb nañ benn xaj xaj ba topp leen gaa yi dàq ko mu ñëwaat gaa yi dàq ko bu muy ay yoon yàlla waxloo xaj bi yàlla waxloo xaj bi mooy leen man nag dama bëgg soppe yàlla yi da bëgg ni nga xam ne mooy ñu ci yàlla yi xam nu ngeen di def na ngeen nelaw fii ngeen ne ci doj wii ma ma leen di ma leen di garde gaa dugg ci xumtuma toog fa di waxtaan ñoom neen seen liggéey daal moo doon julli xoor sàbbal yàlla seen seen dépense bi mooy seen xaalis ba jox ko seen mel waaye bu ñuy wax tam ne ko bu bu ñu xiifee rek li jënd jeex nañ da dem ci dëkk ba boo demee nga jënd indi ñu lekk ba mu jeex nga demaat ñu koy def ñu koy def ci ne ci xumtuma bu wàññeeku ñib si muy dixi annonce ñu ne ko xale yi gisuñu leen fekk tam leqaa juste ci kaw gis ba dem ci dëkk ba léegi nag muy jënd luñ luñ dundee mu ñoo xamaleen buur ñëw na mu leen di seet gaa tiit di jaamu yàlla di sikar di turoxlu di ñaan ngir lan jeex yaa nuus buur la dafa xàllawle xam nga xàllawle baaxul xàllawle baaxul baaxul day tas day tas dëkk moom dafa xàllawle woon nag léegi fa nekk di jaamu yàlla di ñaan rek fekk jant baa ngi so tam li xaa ñëw xamale dafa nekk lii yéen samay mbokk na lekk te naan te wér ci yàlla fa di waxtaan rek yàlla sànni ci ñoom gëmmentu yéen ñu nelaw ci biir xuntum xaj ba ñu nelaw nag tàllal tànkam ya ci buntu xumtuma buur di gëstu di gëstu ba ñu ne ko ñu nga place sàngam buur ñëw ba tiim leen gis leen ci xumtu mi xamul nu muy def suñu bopp sànni ci xola buur ba nekkoon ko na nga tabax xumtu mi mëdd ko muy seen xabru muy seen xabru buur ne ñi fi la ñuy dee nag buntu xub du min xalifa ñu amee ngelaw dama koy tabax mu nekk seen bàmmeel ndekk suñu borom moo bëgg teral leen mu nekk kawteef ci nit ñi insha allah ci gannaaw jamono bu yàgg yàgg yàgg bul jël xuntuma tabax fa gaa yi dugg fay nelaw ñoom ñu mu ne nag bala ñu fii ci xiif mu nekk si xumtu mi nekk seen bàmmeel yaakaar ne ñoom ñu ngi yëg la muy def fekk ñu ngay nelaw suñu borom jënd ruux yi ci nelaw fekk am na ñaar ñu nekkoon ci dëkk ba ni ca kër buur ba gëm nañ ko waaye dañu gëm nañ yàlla waaye dañu dañ ko nëbb buur bi léegi nag bi nga xamee ne buur bi tabax na fa ñaar ñooñu nag ñoo dem jël xalima ñoom ñaar bind seen xisa yëpp bind seen xisa bind waxtu wañ demee ñaata nit lañu seen ña askan seen seen askan dina jëñ nopp jël nag ñaari xalawa xalawaay përëm bind leen benn benn gaal benn waxande boo xam ne përëm la encore def ko ci biir gaal gi dem ci tabax ba mu ñu lonk ko fa ne amal na jamono dina doxa dox ba ab diir suñu borom wane kiimaan gii muy gune yii ñu xam kiimaanu yàlla buur ba faatu na diix yaa nuus ñi ma àndaloon dem nañu ay at jall ay siècle jall léegi nag dem ba dëkk ba ka fa nekk buur la boo xam ne jullit la ñi ko wax baytros ñi gëm ñi bañ a gëm ñi nangu ñi bañ mu naqadi ko nag mu ñaan borom bi ne ma nga ne nga dimbal ma wan ma loo xam ne day wane ne dëkk am na mu baytros suñu borom def ñu toog ab diir am waajoo xam ni dafa yor dafa yor ay gàtt ay gàtt suñu borom na bëgg a wane kéemaan gi te nga xam ne mooy yor gàtt yi léegi bëgg tabaxal gàtt mi fu ñu nekk mu ne kon naa màbb nag tabax bële jël doy ya tabax leen suma gàtt yi de màbb ko rek ba ko màbbee léegi rek gis xale yi tëdd léegi nag suñu borom xee leen ñu toog tan lool seen kawar ñu kukk comme keroog ba nga xamee ne ñu ngay ñu ngay nelaw nañ meloon su amul changement seen taar ba seen ya, yaram yi rafet ya dara changé wul léegi ñu tam tam liqaa kon demal ci dëkk ba nga jëndi ñam yaakaar ne démb lañ nelaw pour ñoom démb lañ nelaw ndax ba ñu nelaw jant baa ngi so ñu ngi yow ci yor yor bi tam li xaa demal dëkk ba jëndi fa ñam wuñ lekk tam li xaa dem ci dëkk ba jëndi ñam gi dëkk ba changé ka fa nekk léegi buur la boo xam ne gëm na yàlla léegi nag ci misaal jamono bi nekk nii mu indi mu indi billet cent franc la la indi pour jënd billet cent franc te loolu mu nga am ci jamono ba ñëwee gaa yi ne nag kii moom fu mu jógee xew ko mu kan la këyitu sa ñaar fukki dërëm kañ ñu koy gis xaalis ba mu yoree xaalis ba yàq bu yàgg effacé woon na bu yàgg da ñu dugg ci sa rek nga ne koy foo jógee léegi nag mu nettali affaire bi mu ne buur bi jullit la mu nettali affaire bi mu nettali affaire bi wax yëpp gaa da dem ci buur ba wax ko buur bi buur yebal ñaari kilifa yi gën mag màgg ñu leen dem leen ngeen ànd ak moom mu wal leen ña mu àndatoon ca xumtuma mboolem mi ne topp mboolem mi ne topp leen ñu dem bu ca fekk fa gaa tam de xawoon ko gaa yi ñu waxtaan ñoom léegi ñoo buur nag ne dawal ñëw nga seet kimaan gii yàlla moo la bëgg wane am na la nga doon ñaan nangu na ba yegg si nuy wante ñoom saafuwante ñoom gaa xamal ko lépp nag benn par benn benn par benn ñu ne buur nag euh, kon nag tàggu nañ la tudd tuddaat ba tey jóguñu fañ fañ ñëwoon bu ñu wantee buur ba noppi day demaat fañ toogoon ñoom tuddaat fa noonu lañu faatoo nag léegi nag borom bi nag mais dégg ñu dafa jàkk jàkk lañu fa def jàkk ba tey jàkk lañu fa ba tey jàkk fa nekk léegi mooy xisatu ñii nag mooy gune yii mooy gune yooyu loolu ñu jàng nag te mu ne laa ñu yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax borom bi nii am asibat am asibtala nag ndax da nga jortu aw ajibta daf ko yàq de aw ajibta ndax da nga jortu ne ana ashaabal kaafi na ko ñooñ xumtuma wa raqimi ak xalawa jañ bindoon seen tur ya seen askan wa kañ lañ départ kaw dañu nekk min ayat na suñ kéem suñ kawtee fi xajabal gën a yéeme déedéet gënu cee yéeme di am na yu gën a yéeme sax léegi nag mu ngay nettali am asibta bu ko jox yonent bi bu ko jox yonent bi yow mi nga xam ne yaay yaay weddi da ngay da nga jort is awaa ba nga xamee tafa na mu alfiliyatu guni ye ilaka fi joxam tuuma fa ñu ngi naan rabbana tun borom aatana ñu ngi ñaan nga may ñu leen ko lu tukkee fi yow ramata yërmande wax yi yal na nga yéwénal da la ñaan mi am naa suñu mbir mi rasadan ci njub فضربنا بهم دفننا سدنا على اذانهم شنو فيا لقنا موي نلو في كفي كفي تقومتم سنين عددا ادي ليمو ليمو ليمو ثم بعدهم نعم. تقنيو ريال نين سا بروم لينا لما غن نيو خامل نين سا بروم اي الحلبيني ان كان تي نياري كولي نيوم نيار مو ني ووتو نونو اسام غدا تاك لما لا بيسو لين صح ام دان جبدير نان نيو تبروم ناكو سو نيو نياتلي عليك جو نباوم سين خبار بلا خجي دغ نيوم نيو فيتون دي نيكون بني يو خامني ام نو نعم. غم نيو بروم بي سين بروم بو سين نام ñu dokk leen ba doon njub kon mu ngi noonu fidyatun lox fidyatun am na bi rabbihim tey nag na nanguñu jaamu yàlla royukaay baa ngi nii royukaay baa ngi nii mhm. wara ban naa ñu takk ba mu dëgg naa laa xulóo bi seen xol nag ba isxaam ñu jógee taxaw ñoomu neen tax taxaw ci kanam buur ba nekk fekk buur ma ne nga su jootal xërëm ñu bañ fa qaala ñu ne buur bi rabbana tun borom rabbu samawaati borom asamaan juróom ñaar wal ardi borom suufi juróom ñaar lan nad'u wa duñ jaamu min doni wala ko de ilaan benn yàlla laqad qulnaa wax nañ seen kon sattan lu jàgg de yo ñoo ko wax de borom bi ne haawulaay ñoomu ñen nag ngi waxtaan ne haawulaay yéen gaañ ñi xaw naa suñ ñi xam su bayaan de i tax jàpp nañ min doni wala borom bi ala tan ay yàlla law laa yaatanu te ñu indi alayhim ci li ñuy jaamu ni bi sultan la yoo xam ne ba ñuy dafa leer nañ fa man aslamu kenn dañ tottooyam bi ma def ko koo xam ne dural na mu an ci yàlla kisi ban fenn léegi nag yéen bu ngeen naree beru ku nekk wutal loo lekk de wi sax tasaltu moom dem da ngeen leen na ma beru ma yàq bu doon ak la nga xam ne ñu ngi koy jaamu lépp loo xam ne ñu ngi koy jaamu ngeen na mu leen beru laa ko yàlla fa awoon na ngeen tafu ji ila kaafi ca xomtuma yansu dana wisaare la comme borom mi ramati ji ramandeem ba yu ay dina mu pare waale dana mun yowee la comme leen mi am likum ci seen mbir mi mirfaqan wala marfiqan li nga xam ne mooy yomb yomb lu ngeen di dundee moo xam añ la moo xam reer la wa samsa daa gis jant bi ja talaat ndem fenk na te saawaru mu jeng xan kaa fiwul seen xumtuma satal yamini ñëwee wa ca ndeyjoor bu fenkee bi saa xarabat ndem dafay so tax lu duhum mu jàggi leen satal simali wetu càmmoy du leen laal mukk nag mukk naa naa yëg du leen laal mukk Mhm. waxum ñoom fi fay watin ñu ci ab yaay ab yaatu yaatu ñu joxumtuma place bu yaatu ngelaw lay ñëw ñu féex lool ñu wax ndémmeex moo leen moo leen di ëpp ngelawu ndémmeex saa ko borom bi ne loolu nag euh, min ayaati lay bokk ñu kawte fi yàlla yi wane yàlla kenn la man yaadil la koo xam ne yàlla gindi na ko wal muwaxtadi mooy aji gindee ko ji wa man yudil koo xam ne sànk na ko nag fulantaji ɗo felantaji ɗo fekloña kolli en aji min goji koy dimbali musidɗa koy gindi mune wa taasibahum len jortu bo len gison ay qasan ñu nek da way heew nga yakane ñu ngay yeew fek ñu ngay nelaw bu dañu ñu xodun ñu nga tëdd di nelaw de wonu xali ñu ñelal bati ñu sa borom saatal yamini ci wetu ndey jor zaata simali ak ci amay ngir bañ suuf ci lek seen jëm yeb wa kalbu seen xajba ba baajitun mu nga aji talal ci raay ñaari xasabam ya lu siidi ci buntu ko xumtuma fa la ko talal lawi talaata wala bo gisun alay ci ñoom la wallayta kon da nga dum mooyu num tukkee ci ñoom firaan daa ji daw te wala mooy te fees lef la dell num tukkee ci ñoom ruuban ci tànge bu leen demoon di leen seeti da de da nga daw de seet buñ moo nettali di dafa ànd ak Muawiya yu dem xeexi ca Room ñu romb xumtuma nag bu ñu fa rombee نكو اه ني دي وارون نيو ديم سي خول خول غاني مي ديما دي خول لين كسرنا لا بني ما خول لا دنا باخ ابن عباس نكو سا واي اي نكو كولا گند كولا گن تماي محمد نبي صلى الله عليه وسلم لو ليت منهم فيارا يلا كو ينتبي دي معاويه يبل اي نيت ديم ديم لي نين خول غا ديم با ديمي ngalaw dak len dak mu metti metti metti metti waaye weer ina waxoon na ko damay xibru uma damay xibru uma bi borom bi ne bon da daw daw yu méttee métti mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wasaalika naka noonu ñu defee nii tuddale ko baax naahum dañ leen xeexee li tasaalu lañ laajante ba dem seen diggante xale wax na moom xale wax nu ko ci ñoom kam labistum ñaata ngeen sax fii ci palaat bii xaaloo ñu ne labis sax nañ fii yow man benn fan abada yoomin wala genn fàllu wàllu fan nag mm-hmm. Mm-hmm. borom bi ne xaaloo wax na ñoom ñëpp rabbukum borom seen nag xanuma yaqam bi ma labitum la ngeen sax fii fam asoo na ngeen yebal ahadakum kenn ci yéen bu rexukum seen xaalis bi xaalis bi bii nag da dem الى مدينه تي أه، دك با أه، فلي ياتنا خول ايها اسكاب بن مغن سل تامنتي نيام فياتكم ني عندي نبي خين تي ورتي منو تي ولي تلطف نيوينتي نك ولي تلطف يس ولي تلطف نيوينتي نيوينتي ولا يسر لنا بوم ييغال بكو كيين ادن كان بوم فخ با كان يغلن كي دم دم دانك بوم فخ كان يغلن انهم نكو نيو وا دك با بو خما غن نبو بور بابا دينا بو يغ yeesaloo dem nga xam ne jekko lañu aleykum ci yéen yeg bokku ñu jam leen de aw yoxe doo ko wala ñu delloo leen fi nu tiim seen diine ja te walantuloo du ngeen texe seen kon abadan faw wasaleqka naka noonu bonam bi ne ahsan na la ñu yëralee ale ci ñoom لينا وانجنا يقمنا نعم، أن هذا لا ينادل يلا أقول دقل وعند سانك يوم القيامة على ربع يتك ساك في هذا أمشي مكنك إذا تناسون بني قشوب بن بن دكتي أمرو زين بير فقال هو أنني نيمنو عليه يوم نعند تبع سنيوم بدي أنا تبع موي نيجا قمنا يوم نفنا كون يقشو ربوم سين برونا على ما أجا قم بيوم خلا لسي وانا لسي نيجا قمنا خلا بونيون على عمرو زين بير نيوان لنا تقصان دن جابو أنا بيوم أجيلان دفك جاك غير جاك تبون تكون تبون يفجولي borom bi nag werante am na ci nag xëy xooloo na danañu wax ni salaasatu ñett lañu rabi'uhum seen aji ñeenteel ja kalbuhum mooy seen xaj ba waaye xooloo dana am ñu wax ni xamsatun juróom lañ saadisatuhum seen juróom benneel ba kalbuhum mooy seen xaj ba nasaraan yee wax loolu waa najraan waa najraan borom bi raj man nag bil xay bi lépp jëm ci tuuma la jëm ci tuuma mooy njort rek la way xooloo danañu wax ba tey ñoom jullit ñi ne safaatun juróom-ñaar la wasaabi seen juróom-ñettel ba seen juróom kal bu mooy xaj ba bii la nag bii la nag bii la nag xam nga nu tax ma ne bii la da ci topp xul ne rabbi sama borom alawma jaam xul ne rabbi sama borom alawma aja xam bi ajatihim maa yàlla bu xamul illa illa qalilun ndara ñu néew ibnu abbas ne na man de xam naa ci ñu ñoom ñu laa bokk ci laa bokk ne falaatu maari bul weranteeti fi mu ci ñoom illaa miran werante boo xam ne saa ren ci làmmiñ leeyam rek ci làmmiñ wala tastafti bul saa kooti laajte fi ci ñoom ba tey minum tukkee ci ñoom adan kenn kon ke juróom-ñett la ak xaj ba juróom-ñaar ak xaj ba wala taqulanna bul waxati mukk nag bi ñu ko laajee def noonu dinaa leen tontu waxul nag insha allah sintu yaa ngi noonu mig si limi tamliqa martonis ninos sariolis sonoas piftionis mu nekk noonu ak xaj mu juróom-ñett wakkal bu mu moo tax Ibnu Abbaas ne xam na ñaata la juróom-ñett la xaj bu moo leen juróom moo tax borom bi nag wala taf tafti fii minhum aadan loolu seen tur nag baax na seen tur yi baax na loolu sax nag seen tur kër goo ko def du lakk du lakk kër goo ko takk takk takk buntu kër ga du lakk foo ko def kenn du fa sàcc Ibn Abbas ne am na xaas da jëriñ juróom-ñeenti yëf booy wuti dara bëgg mu yomb jëlal tur booy daw mbir bëgg caa mucc jëlal tur ya daa leen ko wax booy faj fay safara bind ko ci morso sànni ko ci digg safara sa fay rek ci kàttanu yàlla fay rek fay rek xale bu jooy guddi rek jooy rek bindal jox ko bu leexee mu sangu naan bu leexee mu takku ko sibiru bu métti trop ba jàgg dayoo sibiru ah da koy faj miir da koy faj da koy takk ci përëgu ndeyjoor përëgu ndeyjoor loxo ba da koy faj li ñoo umu sibyaan da koy faj moo gën a moo solo xale rek yaram yi tàng du doo xam lan la mooy umu sibyaan mel ni àndaale da koy faj booy tukki ci géej doo la mukk alal joo ko def booy ko liggéey yokk rek seen tur yaa ngi baax na trop baax na trop trop trop mu ne wala tax ko lan na bul waxati yow alayhi salaatu wasalaam ci ñeen lenn lenn eh, ini naka man faa ñu aji def laa sa ko loolu xaddan subo ilaa yi sa nga ne bu soobee yàlla war ko dama nga fàttali ko sa borom nag isa nasita ne fàtte nga waxul waxal ne ansa an yat yéy ni ma rabi sama borom li ne yàlla gën a jege mi naata ci lii muy xabaaru ñu waa xumtuma raslan ci njub borom bi ne wala biso sax nañu fi ka fiim ñaata ñaata at salaasa mi atin dégg nga jar ko ñetti téeméer ci leen ci ay at am ñu ko def noonu nag mu nekk xar fu bayaan salaasa mi atin ñetti téeméer ne si nii dañ ko wax ñetti téeméeri at bu dee ci weeru wolof nag dafay tegal juróom-ñeenti at ñetti téeméer ak juróom at da koy tegal borom bi wax daal yokk sax mu noonu yokk na ci san juróom ñent andi la ko far tegal na juróom ñent bu dee ci weeru wolof ndax day nekk 29 wala 30 yor taal nekk 31 wala 30 kul waxal naan ndax yow alamu alamu aji xam bisoo la ñu sax loo ñenn borom bi xay bu sama waati fa da sama juróom-ñaar wala addi ak suuf si ab bi yéemal ak li xam mooy gis waas mi yéemal ak dégg ci moom mooy ñi nga xam ne dañoo bañoon yéemal xëyamee ak ñu mën a gis te mën a dégg dañ nangu de maalum dina waa sama waati ak waa suuf min dooni wali borom bi moo liin benn aji dimbale wala ya yusriku du bokk mukk nek fukki mi ci atte bi adan kenn déedéet wala nga jàng ma la nga xam ne ooyel fi koy lekk ci yow def ko min kitab kitaabi rabbika bo ci téré borom bi la mu bandi la dil wa tëlli kalimaat yi ñel kàddu bi wala tëji do fekk min dooni wala borom bi mu taxaadan way wéeruwaay mukk borom bi ne wax dir nga mu yohane ka salatu wa salam nga téye man nafsaka sa bop ma lesina ànd ñi nga xamni yo doon ñi koy jaamu rabbum borom seen bil qaddati ci waxtu suba wala si angel yu dañu nam nak ci jaamu ak wajo xanam borom bi dong dong laa borom bi ne laa tax bu mu jàggi mukk xëy na ak nga bëgg ci ne xayaatu dunya taar bii wala toti bul sa topp man ko xam ne axfal naa dañ sàggan loo xal boo xolam ba xan sa kir naa wala suñu alquran yu tedd ji bu ko mu tafa waa bànnee xam wa kaa nekk am roo a yomin na gëm wa man saakum nefal yekk fur na weddi inaa ñu sa borom ahdat naa waajal nañu na ñeen ñi nga xam ne ñoo ñuy weddi muy yéefare naa leen mooy papillonam ya da leen peeg yëfar yam wayn yastaqiisoo sa ko xettaleku ñu xasoo xettalew leen biir maa ngi ci ndoxkal mool ndox moo xam ne dafa nekk diw xam ne comme diwlin goo xam ne comme gudoro boo xam ne buñ baxal ba mu tàng jir yas yi dana mu wàjji wu joo cël maay ya bi sa ba na asaraabu naan nga wasaat ñaaw na mu murtafaqan ci li nga xam ne mooy wéeruwaay murtafaqan ci sukkandikuwaay foofu de mooy sibbi nañ dem tu ci kanam bon ba ci wéeru way ñal ci wéeru way kay duñu taxaw <laughs> ñu dem ci kanam tuuti seet ba xam fa mu yisi bi de mo kii gay ni subi ni subi mo ni subi mo ni subi waaw saar bonam bi ne bon na mu ñaaw na mu mutafaqan moy mhm. moy safar xam nga bu re inal gaa ñi nga xam ni amono gem nañu wa mu salati te ñu jëf lu baax ina la ñu duñ sank ajjala man yol ko xam ni asan defal na amalan ci jëf walaayka borom bi ne ñooñu lu tax ñee leen jannat adnin ajanaay sax tajri dafay daw min tahtihaa suufam anhaaru ay dex yu xàllaw nañ takkaay fiyaa ci ajjane min asaawira ci ay lam laax min saabin daana moom ruus la mu nekk minu bayaan wa yelutuna dañ sol siyaaban yére yoo xam ne xudran dafa ne tax lool min zun zun boo ci sooy bi nga xam ne dafa nekk bu nooy bi bu nooy bi wa sabraqin ak sooy bu tal bi borom bi ne muttakiina ñu nekk da way zondu fiyaa ci àjjana ala araa'iki ci ay lal ni ma ak a baax sawaabu yool bi mooy pay gi te mooy àjjana waasu na rafet na moom muttafaqan sukkandiku waay waa foofu de rafet na moom xasu na muttafaqan dañu taxaw foofu si dox daal ansimu wala ko dosalol karim rafet na baax na muttafaqan am nañ taxaw foofu